di leen bëggee bu baax a baax képp kuy seetaan émission bi rek maa ngi lay bëggee bu wér a wér waaw waaw comme ni ko waxee rek tey nga fa yéene maa dalal donte ñun ay animateur hip lan mais nag des fois am na suñu xalaat ci làmb ji quoi parce que ñun ñëpp ay sportif lan euh, même bu fekkee du ñu gis si milieu làmb mais xam nañ ci as tuut quoi li waraloon jotaay bi comme ni nga ko waxee rek euh, par rapport ak li li CNG def Zarko euh, ndax Zarko Ada Fass danoo bëre. CNG ñëw combat bi jaar si yoon ñu préparé ko jaay combat bi avant combat bi xam euh, ba ci jouru combat bi gars yi doon ko jaay même après nii nii sax ba tey coow laa ngi dem xama te boo xoolee victoire bi nga xam ni moom la Boy ñaa amoon ci kaw Balla gay sax coow loolu ñoom Zarko dañ ko mujj fay ko carrément ba jamono bii Zarko rek ngay dégg mais li ñu jaaxal mooy combat bi dafa jeex ñu ne Euh, aj na ñaari mbër yi ku si nekk un ba pare amande leen deux millions man damay yaakaar CNG man xaw ma luy seen problème quoi ñoom Bira Sène Bira Sène xaw ma luy problème am moom ak mbëru Grand Yoff yi ak ak ak yenn mbër yu ndaw yi quoi ndax tey gis nga boo nekkee njiit da ngay am fulla ak fayda quoi gis nga docteur Alioune Sarr gars yi ñu ngi doon aalu na dem na dem na dem mais moo ëpp caractère sa waay sa moo ko moo moo ko moo ko gën a comprendre làmb quoi pour man parce que Alioune am na yenn aj yoo xamante ni nekku ci quoi lépp luy taaral làmb ci la nekkoon quoi bi gars yi kaasee ba mu dem bira seen ñëw foog ne affaire yi day gën a taaru mais dañ gis ni taaruwul quoi parce que tey mbër taxaw na fi ne carrément sama tambour major bu ñëwut du ma bëree ménagère mbër bi jug di wax mu ne ko noonoo laaju ma la yow seetaan ma ak moom force yi day ñëw tëgg c'est effectivement gan gi jouru lamb ji moo ñëw tëggal Siteu Sénégal yëpp gis nañ ko sa après combat bu mu jeex jeexee dégguñu si ay aj donte donte donte règlement bi bi bala Gaye si euh, Boy Niang jàllee la yokkaat yeneen règlement indi yeneen affaire mais Zarko ak Ada Fass li leen CNG ajee loolu ñun ñu doon seetaan lamb ji gisuñu ko lamb ji 20 heures nañ ko maanaam xam nga lan mooy problème bi CNG bu fekkee dañuy bëgg lamb yi di jeex 19 heures nan wax ak promoteurs yi ñuy tëgg cinq combat ak grand combat bi muy six combat mais mënoo di ñëw nit ki indi dix combat nga bëgg a jël dix dix combat dix combat ci benn tàkkusaan sa waay loolu yenul maanaa quoi imagineel Gaston tey combat Balla Gaye euh, Boy Niang bu fekkoon dix combat la ko def ban heure la combat yi di jeex xam nga minuit lan jëm heureusement bi mu ko defee cinq combat xam nga tey jii moom promoteur bi ñëw na def ay combat am gars yi ñëw bëree combat bi jeex vingt fii combat gëj na fi jeex vingt heures combat yi mujj yëpp ay vingt et une heures vingt deux heures lay jeex Zarko Ada Fass liñ leen ajee loolu amul benn sens parce que liñ liñ ñoom lu ñu gis ba aj leen ñun gisuñu loolu quoi ñaari ndaw la ñu nekk ci yoon nan leen bàyyi ñu bëree ñi lekkagun dara ci xaalisu làmb quoi boo leen ajee un an leen di sonal rek ñun war a aj mi ngi leen di jàkkaarloo ñoom aju leen na aji ñii ñu dem liggéey quoi ñoom làmb lan am di encourager Ada Fass di féliciter Zarko Mobile de dafa am lu mu waxoon benn jour si benn vidéo bi ma koy seetaan mi ngi naan gars yi comprendre nu Zarko xamuñu Zarko mais bu ñu xamoon Zarko dinañ def ci Zarko ndaag effectivement wax na dëgg Zarko gars yi nanduñu ko sa gëm naa ne duñ ko gaaw a nand gis nga Zarko même bu doon làmb sax turam moom demoon na ba pare quoi Zarko ci li mu dugg rek yàlla du ko ciy dimbali quoi jeunes la ciy nekk quoi ba ci football ak leneen ak leneen Zarko turam ba muy siiw du tey. làmb ji nii Zarko da cee dugg nii nii rek mais nekkul woon sax yoonam Zarko yoonam football la woon xam nga te yàlla dogal na ni demoon na toogoon na ñett at bëriwul dikkaat na commencé poñewaat làmb ji nañ ko bàyyi mu bëre ak ay moromam quoi parce que booyin koy jox nii du seen morom quoi wax dëgg yàlla yoon bi mi ngi commencé yomb ci Zarko sa dafa war a metti Zarko bëggul lu yomb nan ko jël jox ko ay ñoom guy gi buñ ko mënul jox guy gi mais avant guy gi sax na làmb Gris Bordeaux wala Lac de Guiers quoi foofu bu baaxul mu soogay jël guy gi quoi revanche bi xam ñu ñun loolu la ñuy wax quoi soxlaatun yenn booy yi nga xamante ni mooy loolu sarko li mu mayee ay chance dafa bëri trop li mu mayee chance dafa bëri trop dafa jot nag gars yi may ko chance quoi wax dëgg yàlla parce que ñun waa Grand Yoff soxla na am champion comme yeneen gox yi nun koy amee di wax ne waa Grand Yoff nañ gën a jàppale Zarko gën a topp ci ginnaam mu gën a dem quoi loolu la ñuy wax di féliciter Zarko Alamdar <laughs> di ko wax noonu la na gën a defaraat staff bi kese xam di ko féliciter bu paax a baax di wax CNG nag mobile de bëgg nañ nga régler problème am quoi donte mobile de lu muy wax arrangé wu leen parce que bëggoo leen dégg-dëgg bu fekkee looloo tax ngeen di aj mobile 2 di ngeen ko yàgg aj même bu ngeen ko ajjee bu waree wax dëgg da koy waxaat mobile 2 man nag moom dëkk nañ 3 ans bokk benn néeg bi ñuy fanaan kon xam naa ko bu baax a baax xol bi dara nekk ci nit gënu ko lépp lu mu la wax jàppal ni sa waay la quoi na mobile xam naa ko. làmmiñ bi neex na des fois buy wax mun nga si jàpp reetaan ak yooyu noonu mais boo seetee wax ji ba seet wax ji jàngat kese la quoi wax ju bëri solo la xam nga tey li muy dal si kaw CNG di leen kalaate yooyu parce que dëgg yu muy gis la di ko wax CNG mbër yu ndaw yi la sonal grâce seen sax laay wax quoi mbër yu ndaw yi la sonal bu fekkee dafa am ñuy nekk ci nopp yi naan ko lii ak lii ak lii warul nekk nit benn nopp quoi war na di toléré yenn affaire yi quoi di bàyyi muy sedd xam nga loolu daal la na am lu koy wax di wax ni Zarko tamit na gën a concentré ci boppam quoi. yenn yëfu booy mu wàññi ko gën a concentré soo xam ne làmb ji am na si cër quoi Omar loolu amoon lu ma doon conseil Zarko euh, ak Ada Fass Ada Fass lu muy fës si réseaux sociaux yi na ko wàññi parce que mbër day laaj ngay làqatu quoi làqatu dafa baax si mbër mais Ada Fass foo tourné yaa ngi koy gis loolu baaxul ci mbër quoi mbër bu am avenir la xale la mu ngi si yoon nan ko jox marle wala ñu jox ko yenn booy ñi ngi fii mun na amaat combat léegi-léegi mais comme CNG da ko aj un an dem kaaw dem toog xam nga liggéey en attendant un yu mat mu ñëwaat. Mhm. Zarko mënul jël Jackson Jackson na dem liggéey pour ji gis nga gars yi dañuy bëgg a tëgg combat yoo xamante ni Jackson Libidor mi ngi fi Selemele mi ngi fi na jël ñooñu quoi avant muy jël Zarko quoi Zarko du ko ñëw rek bëgg a moom mu bëreeg yow quoi wax dëgg yàlla Jackson champion la mun na bëre ndaanaan la mais na bëreek ay moromam quoi. Zarko dafa bëreeg Baama Ndione Zarko dafa bëreeg Mbaye Guy gi Zarko dafa bëreeg ñoom Siteu bëreeg ñoom ñëpp munul ñëw di jël booy yi nga xam ni prouvé gu ñu dara ko xam nga ñun bu ñu demoon bay jël bu ñu jëlul sa ñoom saa Thiès ak xam nga ñoom rëg-rëg nan indi Malick ñaa Malick naa na ñëw nee na bàyyi na bëre ndax amul combat nan ko jox na ñëw lu leer laa rax na ñëw. bu Malick ñaa mënul ñëw nan ñu jox Lac de Guiers bu ñu joxul Lac de Guiers Gris Bordeaux Gris bu bëggul tamit ñu jël guy gi loolu amul benn problème. Moussa Ndoye comme moom moom gaan genre ko mës naa ko dégg muy wax ni yaraax ak grand benn la mais Moussa Ndoye mi ngi attaqué comme moom nee na moom dawul yoole amul problème na combat boobu taxaw pare nañ pour jël ko mais Moussa Ndoye buñ ko jëlee dañ ko may chance rek parce que moom tam mi ngi si saako yi wax dëgg yàlla mi ngi si sa champion la mais mi ngi si saako yi ñun duñ ko bañ mais buñ ko jëlee dañ koy may chance may ko tur rek mais Moussa Ndoye Zarko du combat Zarko ragal du ko jël <laughs> Zarko gars yi xamuñu ko si kanam lan koy xam Zarko balaa ngeen doon xam ni moo nekk kë ngeen joxoon ko laaj de guerre ngeen xamante ni day aneer du bëre. Zarko moom mooy jël si initiative boppam ñëw fekk si ko bëreeg moom daan ko lu leer laa la wax. Zarko bi koy guy gi di daan combat boobu Zarko xama nan la def ay xasaayit la doon la la sangoo wutul gaalaaj demul ci àll bi ay xasaayit la jël sangoo ko aar boppam. xasaat yoo xam ne ay muslaay la Sëñ Tuubaa ko bind ak alaaji Maalik ak bu Njaasaan xasaat yooyu la jël di aar boppam mais demul woon sax pour wut gàllaaj buy daan guy gi te combat boobu boo xoolee Zarko nu mu ko bëree nga xam ne kii làmb jarul ko woon dara mais jamono bi Zarko dafa soxla làmb ji lu leer laa la wax jamono bi dafa dellu si xam ne mën na lekk dara ci làmb quoi ca waa grand fépp a ngi si ginnaawam gars yi gën a taxaw rek di wax autorités yi nañ ko gën a jàppale promoteurs yi tamit nañ si jàpp jox ko combat yi mais ay Jackson booy yooyu libidoor mi ngi fi quoi gars yi ñu ngi fi ñoom naan di faal na leen jël quoi. Ah, ama neex moom it moog Zarko combat mais mais ama neex xam nga moom làmmiñ bi neex na ko quoi dafa am yenn wax yoo xamante ni bu ko mbër di wax da ngay xam ni day am hmm. ama neex pois amul loxo bu mën a dóor Zarko mu daanu déedéet ñooñu ku si jàkkaarloog sarko doo si gi xool Zarko ba koy dóor lu leer laa toog si tele yi nag di wax yomb na mais ki si jàkk ki si jàkkaarloog Zarko ngeen xool bët ak bët yow sa loxo du jóg booy Zarko bandi géew la de Zarko mun na nekk ni signature di may gars sax ñuy wax parce que contrat moo leen boole mais bu contrat bi jeexee nii ba mu des lu dul taxaw si géew bi la nga doon wax yëpp da nga koy fàtte da lay réer yow doo bëgg lu dul ñëw jébbal sa bopp Zarko daan la baa ma ñoon na gisoon nañ ko fi damay dóor Zarko mu daanu bu mu ko dóorul Zarko mu daanu nañ ko jox bi tey anamu Zarko da ko lem teg ko Zarko moo nekk mbër boo xam ne jël bu mu daan kee ak ku mu daan kee bokkul sa poids lourd la gis nga nu mu toll moo nekk tamit mbër boo xamante ni mosul ñëw nga ne kii andiwul forme sarko yax bee baax même bu entraîné wul yàlla may na ko doole ba pare du morom booy sax lu leer laa la wax ay ñoom gars yi ñuy wax ni ay ama neex ak ay ñoom guy géeg yenn gars yi jéekatu film yi yàlla xam na ni Zarko xajul si ñoom maa la wax loolu tey Omar li ma la wax ni bindal denc kum si jàpp dalay daan moo leen mën moo leen ëpp doole Zarko jamono bi dafa sérieux si lu muy def waaw dafa sérieux caaxaan jeex na ndax xam na lu topp ci ginnaawam lu leer. xam nga làmb nag dafa am loo xamante ni da cee bokk quoi gis nga làmb ji maa ngi gis gars di ko ci critiquer ay daa reew ak yooyu Zarko dafa jaay làmb ji ba ci ba muy bëre sax mi ngi jaay làmb ji te gars yi comprendre li mu doon def noonu yeggu ko fenn xam nga gars yi ñi ngi naan Gris Bordeaux doon waxal. xoolo da ko doon def noonu di fii ma yegg ko fenn. déedéet Zarko amul pression moom nekkul sax si yooyu xamul fu ragal féete Zarko moo ñu xam nañ ko ñun booy ganaaf lan Zarko nii lañ koy yàgg xamee supporters yi ñooy am pression de tiit rek mais bu Zarko bu desee si Zarko kase kase kase non non boo xoolee jëli mu daanu yëpp sax moo ko may bopp moo moo daaneel boppam. Zarko moo daaneel boppam mais bu ñëwul koo wu du daanu sa Zarko dafa nekk mbër boo xamante nii sa li nuy wut si mbër yëpp nga ci moom am na saay-saay am na doole mën na bëre am na fit te loolu la wër si mbër sa yëpp nga ci moom Zarko même bu ñëwul andiwul gàllaa cax boo jàkkaarloog moom di nga xof lu leer la xalaw coolee fi ne rek ay Jackson na dem liggéey mais du moog Zarko doom day combat boobu ku ko waa yow Zarko bu jëlee combat boobu ma génn si moom non bu jëlee combat boobu ma génn ci moom Jackson na xaar zaar na xaar naan di faal euh, pare ci papa booy jinne après mu jël ko waaw wala mu jël li bi door ñu ngi ci ñu ngi fii nii quoi am bëgg bëgg mu mënuñu bëri xam nga booy garant fi ñu ngi fii ñoom ñëpp ay champion lan dox ni gars yi tamit xam nga bàyyi sàcc eh, sàcc fecc yi nii sàcc quoi xam nga ma seen sàcc na fi fecc selemele bi xam nga gars yi jox ko ko xam nga Boy Niang eh, maala windeel boobu muy windeelu ndongo moo ko moom sàcc na ko kii ko xam te làmb ji boo xoolee mobile 2 mbër dàq ko ci grand kon am na ay champion naka na leen yi teg loxo ñu dem loolu la